dañu song parrainage mais dama bëgg ngeen xam ne ñun dañuy dem dama bëgg ngeen xam ne ñun waa gëm sa bopp xale yi màgg nañu nañu comprendre ne xale yi màgg nañu ma leen di remercier parce que gëm sa moo gën metti parrainage ci ñi dem parrainage vous savez pourquoi lu tax may remercier Wa gëm parce que ñun joxuñu le fiche rek nga remplir signer déedéet yéen Wa gëm sa bopp beaucoup ku parrainé gëm sa dafa copie pièce d'identité et loolu ñun dong ñoko demandé moo parrainage bi y a plus de 15 jours depuis plus de deux semaines paré nañu parrainage kon yeen lañu wara féliciter gis